خير المصلح في يدي وفي داري وثبته بالهادي الوفي والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أتوجه بالتحية إلى إخواننا في بلدنا الأخ والشقيق السنغال ونتوجه إلى آه الشيخ آه إمامنا وشيخنا آه سرين أحمد العافية نتوجه له بالشكر الجزيل على استضافتنا في هذا اليوم المبارك في مسجد الإمام خادم الرسول أحمد إمبابا الذي قرأنا عن سيرته الكثير وقد تشوقنا قبلا للقدوم لزيارة مقامه الكريم وهذه الزيارة الثالثة لمسجد طوبى العزيز قدمنا اليوم بحمد الله وفضله لأخذ مقاسات تنفيذ أعمال تجديد السجاد في هذا المسجد المبارك وقد التقينا بالشيخ والتقينا بالوجوه الطيبة وقمنا بهذا العمل على أتم وجه وأفضل ترتيب وذلك بفضل من الله ونعمة منه وأتوجه بالشكر الجزيل إلى جميع إخواننا في السنغال الشقيق آملين الله عز وجل أن يديم الخير والبركة في هذا البلد المبارك لكم كل التحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته macha allah. bisimilah rahmaani rahiim. salaamaaleykum wa rahmatullahi wa mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar te jiital ci ziar bi suñu sëriñ bu màgg bi toog ni ci jataay bi kem ni ko suñu gan gu tedd gi waxee ñëw ànd ak ñoom liggéey bi nga xam ne moom lañu ñu fas yéenee liggéey ci di ci liggéeyal suñu sëriñ suñu yaakaar àddina ak àllaaxira muy si Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul moom nag kem ni mu leen ko waxee ñëw na fii ñetti yoon bii mooy ñetteel bi ngir siyaar si ngir xam ngir bëgg jaxasoo ak li nga xam ne moom mooy yoonu murit te du sori ci ñuy wax ci moom dara ndax barab yi mu jaar ci liggéey leer na ne képp koo xam ne da ngay xeeñtu lu baax wala da ngay bëgg lu baax bu la ko leeralee rek danga nga mën a ànd ak moom ci wàllu liggéey loolu daal mooy li nga xam ne nii mooy wax ci mu gàtt ñu bañ a nekk di guddal nuyu nañu ñun ñëpp sant nañu ñun ñëpp gërëm nañu ñun ñëpp rawatina nag kilifa gu mag gi nga xam ne mooy imam bi ne ci suñu wet kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp waaleykum salaam wa rahmatullah aoudu billahi min asheytaan rajim bismillahi rahmani rahim wa sallallahu wa sallama ala sayidina muhammadin wa ala ali wa ashaabi wa xayra xadimi wa sallama taslima ixwat al iman wal irada ayyuha al mushahidin kiram assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh uxayikum bi taxiyati al islaam wa aqul salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit mbokki taali bi nag nuyu leen saar jiital ci nuyoo bi sunu sëriñ bi sunu imam bi sëriñ Aafiya ak mboolem ñi nga xam ne ñoo ànd ak moom bi ci daayira Muxaddamatul Xidma di liggéeyal néegub yàlla bi noo ngi wax ci turu daayira yëpp nekk Espagne rawatina président daayira bi Sëriñ Mbàkke Njaay Alaaji Abdu ci ak mboolem njiital daayira yëpp ci Espagne ak Europe yépp julli yëpp ci liggéey lislaam bii nga xam ne taaral néegu yàlla bii ah, sëñ Muntaqa mi nga xam ne atallah umra wa ayadu wa nasra jox na ko teg ko loxo liggéey bi ci mbokki taalibe nekk ci Espagne tey nag ñu teewoon fii doon tàmbali natt liggéey bi ci onze heures ba léegi ñu ngi ci liggéey bi ba njulli tëkkusaan ci la doog a mat yaakaar naa lépp li ngeen ci bëggoon ci liggéey bi mbokki teel bi ànd nañ ko ak commission bi ngeen yabal ñu jóge Valencia ànd ñoom ci nat ci liñ ko bëggee ba lépp sotti ci alhamdulilahi rabbil alamin kon noo ngi leen xamal ne liggéey boobu tàmbali nañ ko kon nag noo ngi sant ñëpp di soññ ñëpp ngeen xam ne daal lépp lu ci waay mébatoon nañ gën a waat gën a takkuwaat ci xam ne liggéey bi tàmbali na macha allah bañ xëy ba léegi daal ñu ngi ci kon nag loolu ñoo ngi ci sant ñëpp di ci sant julli yëpp nag rawati nag waa Espagne yëpp fu daayira nekk ak fu jullit nekk daal na nga wóor na bi tey moom lépp taxawal nañ natt nañ ko ba lépp xam nañ li mu doon kon noo ngi sant bu baax a baax di leen gërëm di leen sant bu baax ñu gën a tax taxawaay di ñaan leen dund ak jàmm ba ba di fii ba bi teg sa jaay di ko ci sëñ Mountakha fekk ko teew ak mboolem jullit yëpp ñu jiite liggéey bépp ci barkab islam ñëpp fekk ko wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bisimilahi rahmaani rahim barakat xaadim rasul kon ñu jéem a leeral liggéey bi nga xam ne nii da doon ko def soo ba léegi jëm ci natt li wër jumaa ji ci biir jumaa ji ak bitti bi ngir ñu mën a xam ñaata sajjaada moo koy daj ñu def ko ci liggéey bu jaar yoon ànd ko mboolem daayira bépp ginnaaw bi ñu liggéey pare nag toog nañ ab diir ngir nattaat ngir talxiis gàttal li noon def ba mën koo leeral ci mbokk jullit ñëpp danoo natt biir jumaa ji te moo laal daaray kaamil ak eh, école bi natt barab bi beral ko am na boppam natt yokk yi nga xam ne moo war jumaa ji bin pare ñu boole mètre carré yëpp xayma ñaar tàppi war a doon ak euh, nu mu war a toll tamit ci dimension bu ndee xool ci tàpp yi ci biir jumaa ji dañuy gis ne am nañ ci ay mètres carrés trois mille huit cent cinquante mètres carrés loolu mooy sàng biir jumaa ji ak daari kaamil ak école bi muy majlis bi loolu tàpp yi day verte ànd ak ay couleur ci biir dëppoog couleur islam yéen xam biir barab bi dañ koy beral ay tapim yoo xam ne nii day am ay couleur yoo xam ne nii day am verte am benn lu mel ne lu mel ne lu doore lu ki nekk ak lu nekk lu bunni lu xaw mel ne lu ma a mel ne euh, lu xaw a ci biir nga xam ne day jël ay couleur yoo xam ne nii day nuroo ak barab bi ci kaw ni mu mel noonu tap bi tàppe suuf xam ne day nuroo lépp foofu ñu fiy xaar ci ay tapis trois cent quarante six virgule douze mètre carré boo xoolee kon ci biir jumaa ji ñaari xaaj yooyu la am bu dee ci li wër jumaa ji muy yokk yi ak euh, fépp fu baas am muy baas yi ni jullee fi am bi nga ko xoolee tamit gis nañ ne am nañ ci toll tolloog six mille trois cent huit virgule neuf mètre carré yoo xam ne mooy sàng mbooleem yokk yi ak couloir yi nga xam ne moo am baas yi ci biir li wër jumaa ji muy ñaari couloir yi ci biir boole boo génnee ci buntu dénk bi sa ndeyjoor ak boo génn sa càmmooñ ak ci soogu bi yokk ba baa si nekk foofu moom moo laal 6308 yooyu ñu wax léegi nii bu dee fi ñuy jaar nag du ko si jumaa jaar ci juma yi jaar ñu jumaa ji xam foofu dafa xa bokk seen marab la boo xam ne nii dafa xaw a tàng te bu fekkee dafa taw day day nekk lu tax loo xam ne nii du neex a jaar moo tax ñu gason boo xam ne santi boo xam ne nii danañ ci mën a jaar dem mu wàññi tàngaay wi wàññi tamit tarxis gi nii defoolu foofu ñuy xaal 1200 mètres boo lay nekk ab rul boo xam ne nii mën na koy beesal bés bu ne bu fekkee dafa am ay ayib kon booy tënk da nga biir jumaa ji dana am tapis vert mètre carré nekk 3850 biir yokk yi ak li war yokk bi muy fii mbaar yi nekk ci biir jumaa ji 6308 virgule 9 mètre carré barabu sëñ bi 346 virgule 12 mètre carré yoon yi 1200 mètre carré ñu ñu ñu ne natt natt dafa xaw a léeg nga am foo bàyyi te jumaa yi kene yi kene yi dafa xaw wuute carrément ndaxte bi day rond bi nekk musatil bi jëm bi xaw a nekk murabba ñu ne kon nag nan tànn nañ jël cinq pour cent ci li am ci liggéey bi ñu liggéey muy cent muy cent 500 585 mètres carrés yoo xam ne dañu koy dañu koy indi ci tàpp yi ngir fekkee ne gis foo xam ne ni war nañu koo dolli ba ñu war ko fatt loolu mu ko fatt kon dangay am kon léegi mille cinq 12990 mètres carrés mooy sàng jumaa ji ak li jumaa ji ci ay mbaar ci mbaar yi ci jumaa ji ak barab bi loolu booy xayma da ngay xaar ci étape yi gën ngaa néew dana am mille deux cent deux tapis loolu mooy tapis jumaa ji ba mu wër gën ngaa néew loolu waaw tapis yoo xam ne nii kaare bu ne day am ñetti tapis yoo xam ne nii ni muy diise mooy day nekk 30 kilos xam ne kenn mën na koo cas teg fee bu fekkee am taw wala fa ayib ñëwee lu ko mën a yàq ñëwee bu fekkee ba bañ bu ko laal li da mën a jaar mën koo jël teg fee du laaj mbooloo xam ne day day nekk ñetti tapis yoo xam ne nii mooy man mooy sàng benn benn carré tey soo paree lu muy diisee du weesu kilos li la doon liggéey suba ba léegi nii waaw couleur yi wax naa ko léegi couleur yi day verte ci biir mooy verte am ay multicolore ci biir dëppook islam dëppook yoon wi ndax suñu taal li mooy ñu couleur dafa jàngal ak moytu yi ñu ñu moytu ko ci bu dee ci yokk bi day xonq am ay couleurs yoo xam ne nii day dëpp couleur islam pare li ñu ci moytu lépp na ko moytu incha allah ndax ñun ameloon ci liggéey bi càmbaran couleur yi carrément benn par benn ba lañ ci gisoon lépp ci ay lu war di ko ko ku neex waxal def na ci liggéey bu solo boo xam ne mu ay proposition yoo xamante tamit lu am solo la waaye xam ma liggéey bi bu fekkee pare nañ ci ngir mu sàmm ni ko waxee léegi nee na ni mu bëgg liggéey bi mooy saa suñu paree ñun ci liggéey bi tap bu ñu gis ne am na poussière machine bi ñu bi ñu proposé mu nee na mën na faa dem dindi poussière ba te doolal tap bi bu fekk poussière dafa tap bi dafa am ndox daa am ndox bu tooyee mën na faa ñëw bar ba mu tooy lu mu lu mu lu mu rëy rëy baa masi mën na ko manq ndox mi deñ mu wool ko saa xam ne lu jar léegi li kay def lal yi di yóbbu fee du jar léegi loolu dafa nekk xaaja dafa am dafa am xaaja carrément machine yooyu nag ñu ne ñu ne bu ñu bu fekkoon am nañ ci li ma 30 machine yuy aspiré 30 yuy dindi ndox ak ak ak pënd ah, ndox ak di wowal 10 kon yuy dindi ndox ak di wowal ak 20 yoo xam ne nii day des carré ndax carré yi tamit dafa gën raxas yu koy raxas ñoom ci 10 oto boo xam ne oto bagage doon boo xam ne bagage yi ni yóbbu léeg-léeg ñu am tàpp nga dañ koy tourné yóbbu ca sax sangukaay ca raxasukaay ba bu dee oto boo xam ne day day yóbbu ci fóotukaay ba ak amee benn mat matériel boo xam ne nii bu fekkee da bëgg a dajal tàpp yóbbu ko fële te mbooloo mbariwut benn machine wax xam ne nga ci teg tàpp yi rek ba pompé mu jóg nga puus très très tout boo xam ne ngay puus rek yóbbu ko xam ne mbooloo lu mu néew néew ba lu mu bari bari liggéey mën naa gaaw wut ay teewkaay téere nag ndaxte tapis tamit bu ñëwee day jaadu ñu wut teewkaay téere yu ànd ak moom yu rafet ak yu dàll yoo xam ne nii dana tax liggéey bi gën a sell gën a rafet teewkaay dàll ak teewkaay téere yokk bi xam nga bu tawee bu tawee te loolu soo ñu ngi ko discuté bu tawee léegi ndox mi day dugg ci yokk bi te kon tapis yi ñu sonne mën naa am ayib ñu nekkoon léegi dañu tap baas yoo xam ne nii day mel ne saaru day ubbeeku bun waa saaru xayma ñu dugal ci baas ñu dugal ci yokk bu ne am benn baas ñu dugal ci bu tawee rek ñu gaaw dugal baa bu ñu julee pare sax ajjuma jël tàpp yëpp dugal ci biir baas bi tiiri filtre bi bu tawee tamit baas mën a protéger ba ndox mi du du yàq du yàq tamit du am ci wax nag ci loolu waaw fii tamit ni ko wax tamit ñu ne tamit pour ngi tamit jumaa ji tamit ni waaj waxee léegi nee li tàpp ñu propose bi ñu propose moom bi mu wax moom la bëgg ni moom ni ko waxee ci liggéey bi ñu ngi ko wax dane tap bi day nekk saar boo xam ne nii carton lay doon lay tap bi day am day am batterie benn micro bi ki boo xam ne nii boo su jootee tisli wala nga nga nga sëqat bàyyi micro ki tap bi tap bi am na lu luy xeex loolu ba deñ kataalik tamit boo su doo am xet goo xëcc ne ne ne li mu proposé ne nee na loolu bëgg a liggéey tàpp mu tax tool nag kon fu ñu jaar tamit wut ay détergents yoo xam ne nii moo koy gunge ci xeetu xeet gi wut tamit ay liquide yoo xam ne nii moo koy jàppale tamit ci ci defar liggéeykaay bi ak ay gan ak ay dàll ndax tamit léeg-léeg tamit léegi nag am na xel boobu ci dagg dagg dagg tamit kon léegi te liggéey man tamit day jaar ñu ñu sikka si goon ndax goon tamit li liggéey dafa nekk ngi yàlla kenn fayru ci benn dërëm waaye war na leen aar nag ba ñuy liggéey ku ci ne boo ñëwee liggéey bi nga def ko ba mat sëkk doo ay gants ak ay dàll yoo xam ne ni mooy liggéey ci biir jumaa ji ay bale yu man noonu wut iseel boo xam ne tamit day dëpp jamono comme nekk barab bi ndax barab bi fii jumaa ji yëpp piil bu lakk dangay gis da nga ko da nga ko sensé bu dee ab ventilo da ko sensé bu dee amee lind da nga ko war dindi kon day jaadu ñu wut iseel boo xam ne nii saa suñu tegee bu ñaari ñëw ñett ñëwee rek boo tegee mën a gaaw sens piil bi du jaar mbooloo muy xaar di xaar ajuma loolu ki mu ñu ne tamit léeg-léeg tamit bant yoo xam ne tamit bale yi muy balee bant dafa xaw gàtt dafa gàtt ñu bëggoon léegi tamit ñu jàppale ci matériel boo xam ne nii bant yi day dëgër pare mën a téye euh, mën a téye mën dugg ci jàpp ci ci bale yi ndax bale yi am na fa waaye mu gën a yokk moo gën bant xaw a gudd ndax ñiy bale tamit mën a siggi mbale mbale mu gaaw dafay loolu ay ay sarpe rek jëm ci ay savon ak loolu lépp nag gis ne mënut a ñàkk ci liggéey bi ndaxte jën lu toll nii ci étape bi indi ko jumaa ci antu li koy aar day tax liggéey bi tamit des jàpp naa ne fekk fàtte fekk fàttuma dara lii la mbooloo waxoon naa ko jottali ci liggéey bi mu jégglu ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatulah barakaatu. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi am mbégte di leen nuyuwaat ci barab bu tedd bi ci turu Serigne Afia Bousso bi nga xam ne mooy njiitul daaira Muqaddamatul Xidma ak mboolem waa daaira Muqaddamatul Xidma gépp santaat yàlla bu baax di julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam di sant Serigne Touba ci liggéey bu am solo bi nga xam ne yendu nañ fi tey yendu ko xam ne euh, Serigne Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha ñu ñaan sun borom mu yàggal ko fi loolu te may ko wér daf koo teg ci loxoy bokki taalibe yi nga xam ne ñooy fédération Espagne te santuñu ñu ànd ak ñoom gunge leen ci liggéey bi ngir la ñuy def bu accès méngoog barab bi nga xam ne moom lañ koy indi a nag tey jii xëy nañ ci xëyin wu rafet ànd ak ndaw li nga xam ne moo jóge woon Turquie ñëw ak ñi nga xam ne fédération bi yebaloon na leen ñu ànd ak ñoom ñëw ñun ñëpp ñu ànd teewee liggéey bi liggéey ko liggéeyin wu rafet kon nag liggéey bi mi ngi noonu natt nañ mboolem fu ñu war a natt xayma nañ mboolem fu ñu war a xayma ànd ko itam nag ak ñi nga xam ne ñoom la fédération bi àndal ñoom it ñëw ànd ko cawarte ànd ko ko teewlu ànd ak liggéey jàpp ci liggéey bi jàppin wu rafet rafet rafet boo xam ne macha allah aw jàppin mënu koo gën a rafet kon ñu ngi leen di delloo ay cant bu baax ci turu daayira Muxaddamatul Xidma di leen gërëm euh, li ci matoon a wax ci ay euh, dimension lépp suñ maxtaar wax na ko wàllu qualité nag duñ ci waxati tey waxoon nañ ci keroog am na ñu ñu fi indi woon ñu gaaral euh, yi nga xam ne moom lañ indi woon am nañ ñu ñu indiwaat tey ñoo ñoom waa fédération bi ñoom lañ gaaral lañ leen proposé léegi nag wàlluk tànn lañ leen ci waxoon rek lañ leen di wax tànn ku ñuy jubóol ak ku ñuy jëflanteel loolu ci laxay fédération bi la nekk ñun li nga xam ne moo nekk ci suñu loxo te ñu doon ko def tey jii mooy ànd ak ñoom gunge leen won leen li nga xam ne moom la ñu soxla te mooy li nga xam ne moo fi baax ci barab bi ba bu ñëwee méngoo ak barab bi duñu ko jënd tey bu subaa ginnaaw suba ñaari at ñetti at mu mel ne mosuñu woon a jënd coono bañ ci defoon bépp mu mel ne lañ doon wut dafa dafa mérut na mu war a mel loola lañ leen di bañal loolu rek la ñu àndee ak ñoom ci liggéey bi di leen ci gunge waaye nag tànn moom ku ñuy jëflanteel waa fédération bi ñoom ñooy tànn kuñ jëflanteel kuñ xool ba nga xam ne ci ñoom moo gën a yomb ci ñoom te liñ soxla mën na ko bu boobaa kuñ ca tànn ñun ànd nañ ci. li yi nga xam ne moom lañ ci dolli itam te mooy euh, liggéey suñ ko su ko nit dee def dafay laaj mu am li ñuy wax ay mesures d'accompagnement maanaam ay mbir yoo xam ne mooy ànd ak moom ngir dëgëral loolee ndax liñ fi indi lum qualité bi baax baax baax baax baax baax te àndut ak jumtukaay yu ko mën a saytu bu demee tuuti rek jafe mën naa am. jumtukaay yooyu nag waxtaan nañ ci ak ñi nga xam ne seen xam-xam màcc nañ ci liggéey boobu moo ba ñu tànn ay façon jumtukaay yoo xam ne xëy na baax na ci euh, yuy ñëw ak yu mën a doon ak fu ñu ko mën a jëlee moo tax ñu leeralaale leen ko ci biir euh, waxtaan wi sëñ Maxtaar leeralaale leen jumtukaay yooyu nga xam ne xëy na bu mat tap yi demoon ba agsi dana baax lool ci mu ànd ak moom ndax day gunge ko dafay gunge ci ab yàggaay gunge ko itam ci ab rafetaay gunge ko itam ci baaxaay bi nga xam ne moom lay baax ba du gaaw a yàqu gën a mën a yàgg gën a mën a rafet itte euh, yu gëñ lañ lañ lañ ci la sëñ bi bëggoon ba tax mu sant leen ko ak ñoom itam coono biñ ci jànkoonteel ba fu ne ñu defa làmb wa waa loola mën a dëggu mën a sotti mën a mel nañ ko bëggee woon loolu daal mooy li nga xam ne mooy loolu lañ ci doonoon la jares nag damay koy baamuwaat te mooy ne mi ngi noonu ci seeni loxo yéen waa fédération Espagne yéen a am seenu tànn fu ngeen tànn te mu mel ci qualité yi gën a baax rek foofa ànd nañ ca ak yéen ci tànn googa kon nag ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm bu baax la am solo daal mooy mboolem luñ ci war a wane wane nañ ko fuñ fi war a taxaw fuñ fi war a taxaw ci biir jumaa ji ànd nañ fa ak gan ñi nga xam ne ñoo ñëwoon taxaw fa ba lépp sotti kon nag ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan liggéey bi suñ borom sottal ko ci jàmm ngeen am ci ngërëmul sëriñ Touba te yàgg a liggéeyal Serigne Touba Serigne Touba yàgg koo nangu te lii di nuru balaa ak mbas ci àdduna bi lépp sunu borom tàqale tàggale ko àdduna ba mu set wecc ñu bañati koo dégg fenn ci barkeb Serigne Touba barke weer wu tedd wi ñu nekk wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.